ne parle pas de corps de contrôle parce que corps de contrôle yi dañuy dañuy dem ba benn boobu ñi ko yor ñëpp ci les jaar loolu la fay jaar on lui fait porter des œillères je vais revenir au livre de c'est d'abord le contenu du livre je veux un débat où Cheikh Oumar Anne sera là c'est le contenu du ñu toog Cheikh Oumar Anne décortiquer le livre parce que faut nit ñi ñemeen parce que film de malade ñi ñemeen ko il faut parfois ñu koy ñeme ñu xam ne puis c'est un libre par rapport à la situation Papa Alé Niang je le connais mieux tout comme moi mieux que quiconque te Momar Sène wàllu ci condition parfaite. xam nga ko. xeer. dañuy foofu sax. dañuy foofu. moo police yàgg na yàgg jox gëdd police. amul fiil yi moo amoon fiil boo daan jàpp dañ lay ci police bi foofu ñuy dóor ay fiil donc yàgg na. gisee laaw bi boobu passé damay gis ñu xamante nii ne dañuy dem sur le général pour aller vers le particulier j'ai vu un Pape Alé qui est parti du particulier pour aller vers le général selon mhm. des rapports selon pas moom lu mu wax lu mu wax laat mais rapport la wax c'est-à-dire ci scandale yi wax ne am na dañu def ay rapport dafa wax bii moo si gën a ndaw de ça tourne autour de combien c'est 82 ou combien de millions ëpp na 82 ku nekk ak sa parti waaw moo tax am na liiru ñu livre bi am na ñu benn loo xamante ni aussi mën nañu ko wax parce que ñun li ñu jàpp li ma gis man ci coupe. mooy quatre vingt deux ci rapport bi livre bi mais livre rapport ça concerne seulement les costumes. waaw c'est-à-dire laa gis. ci li wax ci rapport mais man livre ma livre. oui mais di nga mën wax par rapport à la question xam nga symbolisme par rapport à parce que li symbolisme mooy symbolisme mooy ces scandales à milliards moom il a préféré choisir le particulier d'abord parce que am na scandale yu gën a gaaw ku ba c'est des milliards et des milliards six mille milliards ngi fi deux mille cinq cent milliards ngi fi bu ArcelorMittal yeneen i milliards ngi fi sur notre SA bi ak autoroute ak autoroute Eiffage Eiffage et tant d'autres moo tax ma parle du symbole le symbolique bi mu choisir mais ci biir boobu aussi daf ci am benn pédagogie bu papaale def programme qui parle du coude parle du milieu estudiantin demee université am na wolof am na tukulóor am na joola am na mandé am na euh, tijaan am na catholique am na murit am na ñëpp. c'est le Sénégal en miniature. c'est Sénégal en miniature le Pape Alé mii di s'adressé ci li ma jàpp moom dama point de vue ci la adressé pour wax leen ne n'a pas droit à l'erreur même si c'est un franc sur mais moom aussi de bonne foi ci la jëlee sur le rapport de Nafi Ngom Keïta pour wax li muy wax dañuy waxtaan mais man gëmul Nafi Ngom Keïta. comment ça. dama fay. dama ko gëmul. 31 décembre 2011 si Macky Sall est devenu président Pape Alé Niang a contribué 2011 moo fal Macky. moom moo ko recevoir woon. moom moo wax c'est-à-dire dama lay wax ne la 2011. 31 décembre bi Abdoulaye Wade di préparer discours am di ko defaraat moom moo ko oo parce que on lui doit beaucoup certes on doit beaucoup Pape Alé Niang. dina ko toog muy wax. di def discours ñëpp Sénégal yëpp déglu ko fa lañ gën a mayee Macky Sall téye ko ba mu nekk président de la République mais man dama basé wu ci ay faits Nafi Ngom Keïta est à la base de l'emprisonnement de Idrissa Seck et de Bara Tall faut qu'on l'oublie aussi ça on dira le bout attention on est là le mai def rapport sur Idrissa Seck et sur en ce moment Bara Tall faisait partie des sociétés de BTP les plus debout dans ce pays avec presque plus de euh, employés directs et de deux mille euh, employés indirects. Assome Ngom Keïta mii Sall mii moo oo tous les ambassadeurs au Kinshasa. pour leur dire le pourquoi aujourd'hui Idriss parce que coow lu moo amoon. je crois qu'on l'oublie il faut qu'on fasse revenir les faits c'est pour parler de la crédibilité de la dame. accord UGE boobu si lañ tëjee Idriss Seck si lañ tëjee Baratal te biir tëj boobu aussi si la Baratal amee non-lieu si la Idriss Seck amee non-lieu ça était l'objectif en ce moment de ce rapport ba Maître Ngom Keïta loolu moo tax Maître Ngom Keïta waaw ci ay fait am na loo xamante ni gis nga boo ko posé xosee ba posé ko dafa am yu bëri loo xamante ni dama koy xoolaat ci yow dama bëgg nit ku duggoo dafa ngeen koy topp dafa poser ay actes du temps où Wade était au pouvoir donc actes yooyu ñu posé ni mu ko defee ba ñooñu tey kii il a été il a bénéficié d'un lieu sans jugement Baratal a besoin a a bénéficié d'un non-lieu sur jugement donc si lan la basé woon pour def rapport bu inculpé Idriss Seck inculpé kii Baratal on l'attend sur ça na fi ngom kayit nañu wax te waxaguñ ko cela ne veut pas dire que li mu wax ci fii am na wala amul mais du ma basé rapport kii ci rapport UG e wala OFNAC e parce que yenn saa il y a une politisation de ces dossiers moo buy def gëm Pape Matar nee na on a besoin d'hommes de femmes fortes nga xamante ni ñii kenn suba kenn du leen mën a jëm euh, euh, kii garantu on a de ça dans pays ñi fi nekk dañ leen jël ay des gens yu sérieux yu intègre yu gëm lu ñuy def nga xam ne suba bu ñu waxee kenn du remettre en cause li nga xamante ni ne def Et sur ce plan un rapport, un rapport n'est pas quelqu'un en prison. non dama la jox exemple xam nga dama la rapport na mel pas quelqu'un en prison. Oh. gis nga Baratal le même substitut procureur bi nga xam ne moo prononcé woon condamnation dañ koy prononcé da doon jooy biir tribunal parce que dañ ko santoon te bañ ko. waaw dama fa nekk. waaw wax boobu ñun ñëpp ñoo nekkoon Bara. man ko xam nga baar taal dañ koy tëj xam nga boobu. xam nga xaaral moo la xaaral moo la xaaral moo la c'est-à-dire procureur dafa mu am ci lu mu sukkandiku. bu ñu woon rapport boobu bu sukkandiku si dara pour tëj baar taal wala pour tëj kii. mais procureur mën na sukkandiku ci ci rapport xam nga sukkandiku nañ ci rapport Khalifa Sall pour tëj ko. moom loolu la wax. sukkandiku ci rapport pour tëj ko. même fee yooyu yëpp ñu ko tëjee bu ko yóbbu à l'extérieur on a condamné l'état du Sénégal même fee yi nga xam ne moom la suñu magistrat yi dëgg pour tëj Khalifa Sall à chaque fois qu'on a amené ça dans les juridictions internationales l'état du Sénégal a perdu. à dire sur Karim Wade sur les mêmes faits. à chaque fois qu'on a amené les mêmes faits. dans des juridictions internationales l'état a perdu. CEDEAO xam nga c'est pour vous dire que y au-delà de la euh, du, du rapport xam nga c'est quoi il y a la manipulation de la justice. mais c'est ça voilà la, la, c'est la manipulation de la justice parce que loolu tax ma ne la un rapport. non yow yow il faut nga may parce que yow la ñu invité. non non non moi je précise également. yow la ñu invité. non waaw moom la moom la ñu invité. rapport waaw allez-y parce que moom xam nga xam nga kii. allez-y rapport allez-y allez-y allez-y. xam nga xam nga dafa sumb lu rëy. mu taal mi. dama doon écrivain non journaliste d'investigation. moo ciy def liggéeyam ma xam bu baax yu bëri. te bis bu waree dem fu sori. am na yamati ni moo ci oo dem ko si jàppale. da nga koy baax rek da nga ko bañal da nga bañ mën a daal la. déedéet déedéet du loolu sax c'est-à-dire. c'est-à-dire xam nga. waaw xam nga. c'est c'est un problème de niveau c'est un problème de de niveau c'est-à-dire dafa am ay dossiers yu xamante ni ci réew mi yu xamante ni ne man tey jii. il faut ñu jëli ko. waaw bokkati mboote lu xotti bu xamante ni ne mais c'est des milliards c'est des milliards. lu ñu xam nag. mais mais attention attention. attention on se lève pas un jour parce que on a am na dossier de six mille milliards. Hmm. tu n'as pas tous les éléments. ñu hmm. ne dañ ci bind. waaw mais attends wax ne par exemple tu m'as dit sur le pétrole milliards. d'accord. je parle mu tax non non mais les deux mille cinq cent dafa la moo tax nga toog bind toog bind ko parce que xamul tax ma wax la ne la mënoo tëb rek mënoo tëb na damay jël sama biir fay bind un meurtre sur commande ba ko Latif di def il a fallu que moi-même je le mette en rapport avec Pape Ibrahima Diakhaté mu def ak moom des séries d'interviews dans l'histoire de maître Babacar Seye xam ne tenant les aboutissants am na ci sax yenn parti yoo xam ne mën naa ko gën a xam parce que Pape Ibrahima Diakhaté tey na mu personnel loolu tax ma ne la mënoo tëb la un scandale de milliards mu ne waaw léegi jox nañ milliards un avocat amul benn papier bu koy attesté ça pose problème. ça c'est le rapport de l'IGE c'est le rapport de l'OFNAC. xam nga tu t'es basé sur le rapport de l'OFNAC. c'est ce que je dis je dis je. pas dit Ngom Keïta. non tu m'as parlé de pour de. non on s'est pas compris. non j'ai compris ce que là où tu vas revenir c'est-à-dire dafa am benn benn benn benn benn situation boo xamante ne sànq bi nga koy wax. on parle de Ablatif Coulibaly. non j'ai cité. waaw je donne un exemple. c'est pas un exemple pour moi. Vous, vous n'est pas un exemple pour moi. Parce que, aujourd'hui. Parce que tu vois la constance dans sa démarche. Toi, tu es un exemple. Parce que tu es constant dans ta démarche, tu crois à ce que tu fais. Voilà. pas à celui qui ne croit pas à ce qu'il fait. Voilà, on ne se pas. On se comprend Tu te parles a écrit, a a des livres uh-huh. sur la LOSI. oui compte les comptes et mécomptes de la LOSI. les comptes et les mécomptes de la LOSI où sont les preuves. aujourd'hui une fois au pouvoir est-ce que Latif Coulibaly nous a produit comme preuve par rapport à ce qu'on reprochait à Abdoulaye Wade. qu'on me le montre il n'y en a pas. aujourd'hui qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui sans utiliser la CREI montrer que Karim Wade et Abdoulaye Baldé ont détourné l'argent de notre pays. ci wolof. Mhm. c'est-à-dire tey jii. Latif li mu bind yëpp ci compte et mécompte wax ko ci ANACIM yi ils sont les preuves une fois au pouvoir. c'est l'État qui a choisi de refaire la crise. c'est ça c'est ça. le fond du problème. l'État qui a choisi de refaire la crise. la croyance dans ce qu'on fait. c'est-à-dire c'est-à-dire aujourd'hui c'est-à-dire tey. Mhm. ñun tuumaal nañ fi Ablaye Wade. tuumaal nañ fi Karim Wade tuumaal nañ fi Yomati bi ñun. demoon mhm. nañ leen ci li ñu wax alors que tey mënuñu apporter.

na vingt cinq dignitaires yu ci topp waxul ne dañuy poursuivre sur l'ANOCI peut bu ko poursuivre woon sur l'ANOCI gis dara peut-être laa wax xaw ma xare yi la ko toppee pour enrichissement illicite oui non am na ñu waxoon président Macky Sall tu besoin de créer dépoussiérer la CREI am nga beneen yoon boo mën de, de, du rapport de l'IGE sur euh, Petrotim on a dit que cette conclusion yi mais sur la base de sa plainte Karim Wade avait demandé qu'on vire milliards au niveau de la SGS e, Société Générale qui trouve au boulevard Haussmann mm-hmm. bind nañ ko ci rapport Petrotim boobu génnoon ñu ne les inspecteurs IGE defoon rapport boobu bindoon ne euh, ouverture d'une enquête judiciaire et demander au ministère de l'économie et des finances de ramener les 3 milliards. pourquoi topp ñu Karim Wade ci 3 milliards yooyu. mais dugg nañ compte Petrosen. non dañ ne 3 milliards déedéet du au niveau de la Société Générale en France. mi ngi ci rapport euh, IGE bi dama la a wax ne la dans tous les cas. Karim ñëw ñu topp topp ko ci gestion de l'ANOCI ñoom ñoo choisir délibérément ne créer la ñuy toppee Karim avec vingt cinq autres dignitaires mais sur les cinq autres ci biir PDS à part Karim Wade kan lañ ci topp parce que Karim moo nekk regarde le paradoxe regarde le paradoxe c'est quoi on dit Abdoulaye Baldé Demba du non on dit Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé a un dossier en suspens. Aujourd'hui, il le président de la commission de l'Assemblée nationale. Et alors qu'il a un dossier qui n'est pas par la crise. C'est-à-dire, c'est ça où, c'est là, le problème. C'est là dire, cest à des, des poursuites judiciaires, c'est-à-dire ce la crédibilité des rapports de nos contrôle. il y a un problème de crédibilité qu'il faudra régler. Euh, euh, euh, attention. li ma wax yow laa gën a gëm sax nag Ngom Keïta moom laa gën a gëm parce que on les fait faire porter des œillères pour uniquement leurs parce que amuñu institution yu forte. amuñu ay organes yu wóor lu leen neex la ñuy def ñooñu mënuñu basé si ñoom waxuma ne ñuy defuñu de waxuma loolu je parle de ces de ces organes de contrôle là. amuñu crédibilité te ñoom ñoo def lu tax amuñu crédibilité. beneen mhm. bi. Mhm. Ah, je ne souhaite jamais. Ah, je ne souhaite jamais. daf lay daanele. parce que mhm. xam nga tax. am na lu ñu xam ci passé. ne mën naa toog fii ba deux quinze jours di ko déglu parce que xam naa ni kii 31 décembre 2011 invité na Macky Sall contribué na wax na te léegi muy continué moom constance constance boobu nag moo ko doon def wax constance boobu laa ko bëggal moom mu di ko am n'est-ce pas même au-delà du livre yoo xamante ni se ses propres investigations mën na ko def amul weer ñëw taxaw. du ma ci ne du ma ci du wala ci rapport rapport Cour des comptes wala Massamba ma dem. Nafi Ngom Keïta fii la taxaw ni je vais sortir le rapport de la gouvernance sur les kan moo ko woon c'est Cheikh Amar il n'a rien sorti. c'est milliards de francs. elle n'a absolument rien sorti. C'est-à-dire, non, ils ont un passé douteux. Ceux qui ont des passés douteux, il faut remettre en cause leur rapport. dama ko nangu loolu bu ñu defoon dara Macky Sall sa loo ci di gëm naa ni lii du yoon sama wax mais dafa ma dafa am na xamante ni ne loolu léegi ñoo koy jël en charge di ko régler suñu bopp ci suñuy organe ñu ñu yaakaaroon. yaakaar ne ñii dañuy liggéeyal ñoo ñuy dimbali pour ñu jëm situation bi defaluñu ko. xoolal affaire Sudatel xam nga affaire Sudatel xam nga Sudatel ñoom la. xam nga ko. ñan la Expresso. xam nga ñaata lañ jëndee woon orange. ñaata. zéro franc symbolique PS am na sant PS. xam nga ñaata la woon. cinquante cinquante millions. xam nga expression ñaata la. cent milliards. ci avec Abdoulaye téléphone bii ça peut nous des milliards. l'ARTP a été créé par le de Cheikh Tidiane Sy. je faisais partie de ceux qui signaient la j'ai fait ak Thierno Ousmane Sy man maa doon yor pétition yi di wër biir Ndakaaru di dem ba France di dem fu nekk di indi pétition vingt pour cent Latif Coulibaly était là avec nous en train de mener le combat aujourd'hui ce fils de Cheikh Tidiane Sy un jeune ingénieur qui connaît énormément de choses j'ai été trompé aujourd'hui il bénéficie de nos lieux non non non xam nga li daal yàlla dafa bëgg yàlla dafa bëgg dëgg yàlla bëgg dëgg dañu bëgg aussi saa yi wax ñu xam ne dañu tegu si dëgg nekk ci liggéey bu xamante ni ne Pape Alé Niang est plus crédible que Nafi Ngom Keïta est plus crédible que que parce que à tout moment on peut les utiliser à mener des combats politiques et c'est ça que je ne veux pas. tey doomu Cheikh Diagne Sy boobu nga xamante ni ARTP bii moom moo tax mu am tey c'est un ingénieur bu jàng am xam-xam ku nekk loxo si réew mi. ci àdduna bi il a été emprisonné dëgg la wala dëgg. bénéficier d'un non-lieu du temps où Macky Sall est au pouvoir et ce combat a été mené par Raji Coulibaly bind wax ne il y a 20 milliards qui ont été détournés xalaas dara am fi waaye léegi loolu bu amee lenn mhm. boo remettre en cause un peu mon affaire parce que man mën naa ñëw rek ñu engouffré ma ci benn wax ci benn kii noonu sans pour autant que je réfléchisse loolu tax nga wax politisation politisation euh, euh, des dossiers Cheikh Omar